salaam cher mbokku internet Medina TV ñoo ngi nii ci Medina rond point centenaire ñu ñëw nag ci li nga xam ne ni mooy événement Diaw Ketchup bi Diaw dafa woote Medina social ay mbokkam ay xaritam ay nawleem de artiste ñëw jàppale ko ci bés bi ma fas yéenee ñëw fii pour indil leen li nga xam ne nii mooy li fi xew wan leen ko ngeen gis ko kon gars yi taxaw leen fi ngeen taxaw bu leen jël seen téléphone di dem ci beneen chaîne taxaw leen Medina TV ma wan leen li xew tey ci Médina rond-point centenaire ak Diaw Ketchup Médina social. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di fay nuyoo yéen waa Médina TV di yeesalaat bu baax a baax sunu moomeel ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim sol di ko jaarale sunu bunt ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di ko yaan di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootu Seydina Ousmane gépp ak mbokk taal bi yëpp di leen baal wàq di leen baal ci weeru koor sunu teewaay fii nag dara waralu ko lu dul fekk si sunu mbokkum taalibe Diaw ndax day koo xamante ni bi nii danoo bokk génération mu yëg nu lool nag lu muy dugg rek dinu ko yëgal donte léeg am na ci yoo xam ne xëy na tànk yi daan na diis wala ñu nekk ci ndigalu sëriñ bi ba duñ mën a teew waaye nag mu tàmbali ak ay xaritam ak ay ami d'enfance am tàmbali lu rafet taxawal mouvement boo xamante ne bi nii danoo bëgg di yëngu ci social mu tàmbale ko ci weeru koor gi te wax dëgg yàlla yaakaar naa ne lu baax moom boo ko gisee da ko war a yokk rek waaye doo ko wàññi moo tax bam bi yëgal ñu yéene jim ci am ak lim ci bëgg a def ñu rafetlu ko moo tax ñu ànd ci ak moom ndax bu dul dara fii am na ci benn benn yoo xam ne sax dañuy béggee suñu jëmm ci te bu ñu gisee rek xëy na seenu dina yokk ci li ñuy def moo waral moo waraloon suñu teewaay ngir encouragé ko ci liggéey bi waaw macha allah. sang bi kontaan nañ lu bari. waaw ñoo gën a bég. yal na la fi suñu borom bàyyi. amiin amiin amiin amiin. bég nañ loolu. waa Medina TV ñu ngi kontaan bu baax si yow. defalal ñaan nag euh, li nga xam ne mooy Medina mu dem ca kaw ca kanam. waaw Medina TV moom yàlla na yàlla na wuyu turam rek Medine ma ca ma ca màkkatal mukarrama ah. waaw te gis nañ wax dëgg yàlla solidarité bi am ci waa médina kon nag loolu yàlla na wuy si télé bi ba mu doon télé bu yaatoo yaatu boo xam ne àdduna bépp dañ koy seetaan bi jaahi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërë ngeen jëfat ay ca iso waaw kon ni ma la ko waxee woon rek nee naa la euh, Médina sociale bi jaw ketop def fi mu toll nii Médina foo sànni mbaat mu toj vraiment ndaxte ay mbir mi dañoo sax ëppi loxo macha allah waaye nag damaa damaa toog ki nga xam ne nii ah mooy Birane Ndour Ndour a waali mbergaan fi tubaarikàlla ah suñu waa ji nga xam ne naa ku nangu ni koor ku bañ ni koor ñun mooy suñu dalin koor fi tubaarikàlla ah sang bi ziar naa la de delloo ziar mon frère mbaa yaa ngi am tawfeex bu waaw ñu ngi sant bu baax a baax waaw ma la doon laaj euh, tey lan mooy sa teewaay ci euh, bés bi Médina laa bokk rek bokk Gueule Tapée waaw xewle euh, amoon yaqin ne euh, il fallait que ma teew donc ma ñëw fii sawar si euh, am ci mbégte bu rëy ndax acte bi parce que social la ñu woote te jàpp naa ne social fii si réew mi dafa doon lu am solo ñu nekk ci weeru koor mu doon weeru solidarité sama rakk jaw ketchup ne tey dafay maye ay ndogu convier ma pour ma ñëw donc duma def lu dul ñëw jàppale ko ci loolu. gis nga Médina ak Gueule Tapée ak li ko wër yëpp ay ndaanaan yu bëri dañ fay génne ay ndaanaan yu bëri dañ fay meññi te mu doon si secteur yu bëri soo nee politique mun nañ si jox ay tur nga wax culture mun nañ si wax ay tur nga wax sport mën nañ si wax ay tur fépp foo laal. yàlla def na ne que am na doomu Medina boo xamante ne génn na fi donc tey Medina TV war bet kenn ci kaw ci kanam rek lay dem parce que ñun euh, Medina non seulement ay bañkat lañu te dañoo fier euh, gëm suñu bopp te jàpp nañ ne lépp luñ nekk. dañ see war a xar suñu tànk tubay te kenn waruñu see jiitu donc tey boo leen demee ba taxawal Medina TV dama leen di ñaanal rek ngeen dem ci kanam waaw lépp li ngeen si séntu wala li ngeen si bëgg yàlla defal leen. daw ñu ngi lay siyaar. maa ngi leen di delloo siyaar di nuyu waa Medina Medina TV bu baax a baax ndax defe naa ne suñu kër la balaa balaa balaa beneen site wala beneen kii Medina d'abord Medina moo ñu yor lu ñu def tey Medina moo tax ñu am ko. ndax wolof dafa ne bu lëg lekkee xolam na ko gërëmee cooy donc la Médina tout fait pour nous donc mënuñu lu dul reconnaissant envers la Médina. jaw jaw ñu lay laaj yow euh, lan moo la lan moo la inspiré nga créer initiative bi. waaw mais toog ak sama copain yi waxtaan rek instant yi confinement lañ nekk ñëpp dañoo tëju ñu xaaj bi dañuy football xaaj bi dañ nekk di jàng te ku ne xam na ni football bi fu mu toll nii demeewu fa noonu parce que ñu ngi tëj terrain yeeg jàng bi tam demeewu fa noonu Ah, actif man ne nañ nañ nañ lancé benn association boo xamante ne dañuy dimbali suñu waa gox ah ku ne xam na ni man am na lu ma yàlla may am naa ay nit yu mbaax ah am naa ñu ma yàlla booleel bu ñu sukkandikoo ci loolu mën nañu jàppale ay nit jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk Médina autorités yi ñoom itam teg seen teg seen loxo bu baax a baax a baax mbir yu demee nii. dëgg la Diaw léegi dañ lay dañuy jeexale ak ci li nga xam ne nii dañ la bëgg laaj maanaam lan mooy euh, lan mooy Médina social. médina social bi lan la exact defe naa ni tur bi wuyu na wuyu na wuyu na boroma boo nee médina ne social mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk biir médina bëgg def di social fii ci biir quartier li mooy première activité bi muy joxe ndogu bi te bi mooy première activité association bi. affaire bi mi ngi sosoo si benn groupe whatsapp suñu groupe whatsapp ñun suñu biir suñu xay suñu groupe quoi ñun jaww moo bëgg démb la de benn vocal mu am idée bi quoi. dóor si groupe bi vocal ko quoi léegi ñun ñëpp te ku ñu bëgg a groupe ñu ànd chaque jour nga defandoo lépp ñu footballandoo chaque jour ñu appuyer loolu ñu ne pourquoi pas ñu valider ko après ça va quoi gars yi fekk ñu si ñu si ko moo indi lii tey. ah macha allah président euh, de Médina social ñu ngi lay kontaanee lu bare bare bare bare léegi léegi léegi loo wax si Médina TV. Médina TV macha allah sa kaw sa kanam rek parce que ñun amuñu dara lu dul Médina. parce que Médina da leen takkal étiquette boo xam ne ce n'est pas le cas ñun ay bañkat lañ ñun ay noble lañ ñun booy Médina yi on est fier d'être Médinois tey ji boo gisee lii c'est pas c'est pas donné nga woote ñëpp ñëw y a des personnalités ji bàyyi seen lépp ñëw xam nga loolu noonu c'est pas donné ñun ay noble lañ Médina one love Médina sa kaw sa kanam macha allah Médina TV mi nga xam ne lu xew Médina mu xuus dox ci lijjanti ko jëmmal bés bi Medina TV kenn du ñun barki rasulullaay waaye nag damaa taxaw ak ki nga xam ni ni mooy Abibu jiite ah di doom ci biir Medina bii nii Abibu siyaar naa lu bare bare bari nekk artiste rappeur nag ci Medina lu mu rabul baaxul Abibu ñu ngi lay siyaar wàllu frère maa ngi leen di kontaane bu baax di wax ne ñu ngi nuyu Jaw Ketchup ak équipe bi mu àndal yëpp ak Medina TV di am mbégte ak contentement si ndogu yi nga xamante ni tay Jaw er-, organisé na ko mu nekk première édition bi nar a wër Médina bi yëpp ak Sénégal ak li ko wër kon ñu ngi wax na ñëpp jóg kilifa yi nekk Médina ak kilifa yi nekk ci dëkk bi jàppale jaw Ketchup parce que jàmbaar la wax dëgg fa yàlla frère la xarit la am di jàmm la waaw nit boo demee bay gisante ak moom statut di yónnante ay message ak waxtaan ay waay ngeen moo waral suñu teewaay ñu bokk si Médina bi di ko rafet rafetlu di lu seen liggéey waa Médina TV yéen tamit. kon yéen ñi nga xam yéen ay waa Médina yéen ay soppeem ay xaritam ay am di jàmbam daw leen ngeen jënd lii. boo leen ko dégloo di ngeen kontaan ndax ay lu ne ngi ci wax nga waa rab nga ci lu ne teg nga ko ci temps bi. waaw góorgóorlu nañ daal def benn EP bu def huit titres voilà huit titres yi sénégalais yi ñoo ko moom waa Medina ñoo ko moom waa Caaroy waa àdduna ñun euh, ki ko def ku ko déglu la bëgg. ak ku ko utiliser ñun amuñu lu dul euh, public bi. Uh-huh. voilà public bi yàgg nañ ko xaar dëgg la nëbbatu bi yàggoon na ñëwaat nañ indil leen huit titres vidéo yi mu ngi daw si télé yi ñu ngi wax tamit am na quelques sons yu disponible YouTube voilà mu ngi noonu Habibou Djité ADF daal seen produit la quoi seen doom la voilà xoola waxal sa lépp sa Instagram sa Facebook sa lépp yow wax ko <laughs> ndax yow xoola nee la ñun waa Medina TV ñu ngi sa ginnaaw te duñ la bàyyi du fii kese ñun ak yow dañuy def ak sa émission yëpp di wax waa Médina bi yëpp ndaw góor mag ak jigéen fu waay nekk si Médina na nga abonné si Médina TV bi waaw partager affaire yi mu dem. parce que surtout ça suñu télé la. waaw Sénégal des fois dañuy fàtte loolu nañuy abonné di partager affaire yi di like parce que Médina TV bu jëmee kanam ñun ñoo jëm kanam. man yàllaa ma nattoo Médina ma am kër maam di jaabante Médina Thiaroy ak dakaar ak li ko wër kon Médina TV ca kaw ca kanam. jaw Ketchup nag yàlla na ko yàlla suñu borom. allahumma amiin waaw maa ngi nuyu sama directeur Abdou Fall bi ma àndal tamit. directeur général global assistance voyage. waaw ñu ngi rafetlu daal liggéey bi jërëjën jëf. allah di lay siyaar. maa lay fay. maa lay siyaar di la bëggee di la nuyu. sama maa mel koor gi dara gaañ de. rey na ma ba ma dee maa ngi ndog ni gisoo. <laughs> lii ma deuxième coup. ah léegi yow nga wax euh, ci li nga xam ne mooy initiative bi jaw Ketchup jël. waaw xam nga ne lii macha allah lii ku ko gis xam ne yokkute rek la initiative bi ku koy def te gisoo si njëriñ da koy bu yóbboo nga xoolaat sa bopp. macha allah si yaa may dégg. Uh-huh. ku jël sax par rapport xaalis su bopp. jël ko di ko def te yàlla tax. di ko jox nit yi ñu koy ndogoo. xamal ni saa yi loolu yokkute kese la. waaw leneen la xajul. léegi yow lan moo doonoon sa tànk fii nii ci bësam bi. waaw en tant que booy Medina di ko def. dañ koy def dañ koy teewee. ndax lu ñu xew la da teew. kon nag moom bu xewlee di jox ko ndogu foog ñu soutenir ko jàppale ko si ànd ak moom si joxe bi lépp xam nga parce que booy Médina la te ñooy ànd ñooy toog ñooy def ndaw lépp macha allah waaw. li ñuy dëgmal nii tamit dañ ko dëgmal ngir jàppale ni nga xamante ni ñooy néew di doole yi bugguñu koo yemale fii doomu Médina dafa fekk ni dañuy doog a tàmbali te booy tàmbali te booy te booy tàmbali defe naa ni da da si baax ñu tàmbalee suñu gox. bu ko defee mag ñi kilifa yi dëkk ci gox bi ñu mën ñoo ñaanal bu ñu ñaanalee rek buñ demee feneen mbir yi dana dox donc ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax ci teewaay bi ah di rafetlu teewaayu Birane sëriñ bi tam maa ngi lay kontaanee bu baax a baax kontaan nañ bu baax defe naa ne bi ñu xamantee ba tey bi ñu jàppantee ba tey man de rëccuwuma ko parce que lii rek yombul Mbacke Balla yow tamit maa lay jaare bu baax a baax di rafetlu teewaay bi defe naa ni sama xol dafa fees sax ba mënu maa wax ah kontaan loolu rek kontaan loolu rek di leen sant bu baax a baax merci beaucoup.